dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu musiba mabba kumba gu rëy jamono ji nag boo muy tuule moom mooy yot réewum Sénégal ci lu nag jëm ci jàngoroy coronavirus ji nga xam ne mooy jaaba jonge ci réew mi yéenekaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal lan ñu Sénégal jamono ji ma ngi si juróom fukk ak juróom benn ci ay nit ñoo xam ne amee nañu jàngoro ji waaye nag la ca gën a doy wa te te mën a nag maanaam daan giraawaale ci réew mi mooy coronavirus bi maa ngi doxantu ci réew mi ndax am na ñoo xamante ni amee nañ ko te xamuñu ñan ñoo leen ko wàll te mbir moomu nag bu ñu yeggee foofu maanaam caaf maa ngi waaj a xam yéen gi mu ñu xamal naa ñu nag lu toll si juróom ci ay région ci Sénégal daan nañuy amee jàngoroy coronavirus Dakar Diourbel Thiès Ziguinchor ak Saint-Louis région yi yëpp amee nañu jàngoroy coronavirus yéen a kaay gi de la mu ñu xamal naa ñu ni démb ci dimanche ji Sénégal daal dinay am lu lu toll ci fukk ak benn ci ay nit ñoo xam ne amee nañu jàngoroy coronavirus yéen a kaay gii di Sud Quotidien mu ñuy xamal na ñu xalif général des Tidiane moom nag kaful benn yoon ci li nga xam ne mooy jàngoroy coronavirus ji ndax nag lépp loo xamante ni jëm na ci juma ak jàkk ak nag ay mosole maanaam nag ay xabru daara lépp sëriñ bi daan na koy tëj ràpp yéen a kaay gii di Le Soleil Abdoulaye Diouf Sarr nag la mu xamle nee na jamono ji tolérance zéro am na loo xamante ni nag du ñu ko benn yoona yéen le quotidien mu ñu xamal nañu est-ce nag Sénégal jëmul ci état d'urgence bu fa jëmul timit jamono ji mën nañoo wax ne jot na sëkk yéen kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal nañu en tout cas li am ba des mooy police am na loo xamante ni daal ma ngi koy daal di waajal ndax nag ñoom ñoo ngi dajale seeni ñooñ maanaam di leen di xaarloo ba pare nag ne leen jël leen seen garde maanaam waaj leen mbaadu nag dañoo jëm ci ab confinement général maanaam kenn ku nekk toog sa kër jibi jaxate na loolee rek moo ci mën a musal nag askanu Sénégal yéen kaay gii di l'observateur ñu xamal la ñu ci ab état d'urgence la ñu daal di jëma wala nag ab couvre-feu moom la palais bi jamono ji nag di waxtaanee yenekaay kaay gi mu ñu xamal la ñu tey ji njiit réew mi di président Macky Sall dina daal di def ab déclaration Abdoulaye Diouf Sarr ci yéen kaay gi di Les Échos la xam le nee na jamono ji maanaam nag mbir mi dafa compliqué mbir mi compliqué na docteur Safiatou Thiam moom nag la mu xamle nee na confinement kese rek dong mooy solution bi yéen kaay gi di enquête mu ñu xamal la ñu li wérte wër mooy Covid 19 bi maanaam ma ngi circuler ci biir réew mi te nag bu ñu eggee foofe rek njombe mën naa am Bamba Fall maire bu naa la moo xam le nee na dem bi ak dikk bi transport bi ci boppam la ñu war a daal di dakka la yéen kay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu transmission communautaire moom bu ngeen ko déggee rek ngeen xam ne maanaam nag njombe daal di nay ama ñi nga xamante ni ñoo ko am kenn xamul kan moo leen ko daal di wàll yéen kaay gii di libération mu ñu xamal nañu am na ñett ñoo xamante ni dañuy yëngatu ci la jëm ci wàllum faj sa Cees ñooñee amee nañu jàngoro ji te xamuñu kan moo leen ko wàll te ñooñu nag maanaam jegewuñu benn yoon ak koo xamante ni sax jamono ji ministre bi daat nay wax ne amee na coronavirus li wér te wóor mooy am na ab directeur institut français boo xamante ni ca Saint-Louis moom tim kaka wàll jàngoro ji xamuñu kan la yéen kaay gii di réew mi quotidien professeur Daouda Ndiaye la mu xam ne nag nee na mbir mi daal ba mu commencé ba léegi dafa dafa sérieux waaye nag rawatina nag jamono jii nga xamante ni moom la ñu nekk professeur Daouda Ndiaye ne bu ñu waxantee dëgg mooy lu ne mën naa xew ci réew mi il faut s'attendre à tout moom nag nee na Sénégal ci boppam amulu ay moyen ngir def confinement loolu nag buñ sa bañee egg ngir bañ am ay jafe-jafe nañu toog si sunuy kër askan wi nag respecté li nga xam ne moom la ñu leen di wax yéen kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal nañu ci ab état d'urgence fa ñu jëm laas yéen kaay na lu toll si juróom benn fukk ci ay nit ñoo xam ne daat nañ leen di confiner diwaanu diiwaanu Kédougou yéen ak ay groupe promo consulting bi mu ñu xamal la ñu ci lu toll si ñaari fan rek Sénégal daan nay am lu toll si ñaar fukk ci ay cas Vélingara foofee nag am na koo xamante ni ab agent de santé moom am na coronavirus lu toll si ñeent ci ay njaboot yoo xam ne dañu leen a musa Moustapha Diakhaté ne Touba jamono jii dañu ko war a quarantaine kenn bañ faa dem kenn bañ faa jóge yéen a kaay gii de la mu ñu xamal la mak Macky Sall nag nee na dafay rencontrer ñi nga xam ne ñooy opposition bi laas yéen dëgg la suba Macky Sall dina daje ak Idrissa Seck Ousmane Sonko ak Khalifa Sall waaye nag Cheikh Bamba Dièye ak Abdoul mbay ñoom ba léegi ni d'accord guñu yéen kaay gi de la na Macky Sall jamono ji waru fi war a nekk di wax na dafay rencontrer ñi nga xam ne ñooy opposition bi ñi Macky salle waroon a seeti mooy kilifa diine yi waxtaan ak ñooma ndax nag jamono ji ñu toll jamono yi waxtaan la ba ñëpp nag daal di déggoo ndax li nga xam ne gis nañ ko àjjuma ji ñu génn loolee defarul waaye nag dafay daal di yàq yéen kaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal ñu ca diwaanu Gambie bi lu toll ci fukk ak ñeent ci ay nit ñoo xam ne dañu leen a beroon dañoo daal di rëcci itaali journal bi nee na lu toll si ñaari fan junni ak ñeent téeméer yu fekk ñeent fukk ak ñeent ci ay nit yoo xam ne ñàkk nañ fa seen bakkana yéenekaay gi de La Tribune ak Rewmi Quotidien ak L'As ak Les Échos ak Source ak Sud Quotidien yéenekaay yëpp xëy di ñu tàggee Mamadou Ndiaye Dossa nekkoon ab journaliste jaar nag Walfadjri jaar des médias moom nag ma ngi génnee àdduna fi nga xam ne moom mooy sa Espagne Les Échos di ñaan nag gouvernement bu Sénégal ñu def seen kem kàttan ngir nag andi ko ci réew mi ñu bañ koo denc ca diwaanu Espagne